ibnu Abbas Abdullahi la tudd baayam a tudd Abbas ñoom ñaar ñëpp yal na dolli ngërëm daa wax ne ñeent ñi dey mënuma leen a fay ndax lañ ku jëkk ki mooy gis fexe ba jëkk maa nuyu loolu ak fonkeel la ñaareel ba mooy ki nga xam ne maa ñëw rek mu daal di may yaatal ma toog ñetteel ba mooy ku xam sama soxla mu jaral ko jóg di dox di ma ca dimbale bëgg mu faju ñeenteel bi nag ak mbaaxam a tax mu ber ko réel ko ne moom day yàlla rekk ko mën a fay te boo ko dee seet njariñ la kat fi mu toll nii bu dee ci zahir déewul ci moom moom mi wax ndax dane ku ñeenteel ki yàlla rekk ko mën a fay ñu ne ko kooku mooy kan mu ne mooy koo xam ne daal dafa tëdd ba guddi am mbir mu ko jaaxal mënuta ñàkk dem seeti ku ko ca dimbale mu xalaat-xalaat xelum jàppul ku may man mu daal ñëw ci man ne ma dimbali ma ci aajo ji kooku daal nee na mënuma koo fay yàllaa ko mën a fay loolu nag seetlu nga ne moom taxaw gam ci taxaw ngir yàlla yàlla fay ko ci tuyaaba xanaa loolaa tax mu gën koo réyal ci ñett ñee waaye bu dee ci saaxir dong moom ñett ñee ña ëpp ci moom njariñ ku mujj ki waqaala waxoon na aliyun aliyu karamallahu wajha li waladihi ñeel doom ja alxasan ne ko yaa bu nay yow sama ndoom ihfad wattul xan yi jële ci man arbaxatan yent xaala mu ne ko wama hiya analuy baay xaala mu ne ko i'lam xamal ne an aghnal ghina naka gën jaa wóomi am koom alxaqlu mooy xel wa ak baral faqri ak naka gën jaare yi ak ñàkk alxunqu mooy ak ndox wa aw xachal waxshi ak naka gën jaar wéeti wéetaay alxujbu moo di ak aaw maanaam ji sa bopp wa ahsanal xusni ak naka gën jaar rafeti taar xusnul xuluxi mooy rafet jikko al imaamu xaliyu waxoon na doom bi tudd alxasan ne ko samas ndoom jàppal yent yi xasan ne ko yu mu doon mu ne ko jàppal ne am ba am jeex am xel moo ci gën ñàkk ba ñàkk jeex ñàkkum xel dofe moo ci gën a bon lay tax wéet nag la ca raw mooy gis sa bopp boo xësee naw sa bopp rek bañ xam ne da ngaa naw sa bopp ñëpp wan la gannaaw mu ne ko taar nag ba taar jeex bu ci gën mooy rafet jikko rafetaay boo séen ba rafetaay jeex rafet jikko ci gën xikmatun lii beneen wax bu am njariñ la wa qaala alxusaynu radiallahu anhu yambaxi dana yell lil mumini ñeel aji an yakuna bu nekkee lahu ñeel ko arbaxatu ashiya ay yenti yëf daabatun daaba faarihatun ji aji xiiw mooy daaba ju baax a baax ju ràññiku wa daarun ak kër waasiatun guy aji wa tiyaabun ak ay yére ay malaan jamilatun yu aji rafet jamilatun wa siraajun akub làmp muniirun bi aji leeral fat daabatu daaba ja alfaarihatu ja aji xéewu alxaqlu moo di xel waddaaru kër ga alwaasiatu ga aji yaatu asabru moo di muñ wa tiyaabu yére ya aljamilatu yi aji rafet aljamilatu alxayaa u di kersa wa làmp ba almuniiru bay aji leeral alilmu moo di xam-xam alxuseynu yàlla ko yàlla doole gërëm nee na woon ku gëm yàlla ku ne war naa am yeent yii war naa am warukaay bu baax a baax ak kër gu yaatu ak yére yu rafet rafet ak làmp bu leer leer mu ne nag li ma jublukat mooy daaba ju baax ji moo di xel kër gu yaatu gi moo di muñ yére yu rafet yi mooy kersa làmp bu leer bi mooy xam-xam kon ci gàttal daa bëgg wax ne ku gëm yàlla ku ne war naa ame xel mu rafet amee ak muñ gu yaatoo yaatu ame kersa gu mat sëkk di rus lépp lu mat rus te yàlla tax amee xam-xam bu rafet rafet xikmatun lii beneen xikma la wax bu am njariñ wa qaala alxubbiyu ijtamahat dajaloona xikmatul xukamaa xikmaj booy xam ñi xikam xala arbaxi kalimaatin ci ñeenti baat waxee ñoom ñoo di laa taxamil bul yan xalaa xalbika ci sa xol maa loo xam ne laa tutiixu doo ko attan wala taamal te bul jëf maa loo xam ne laysat fii déet muy nekk ci moom man fa atul njëriñ dañ fay def nag xalaa muy wala taamal bul jëf xalaa maa ci kaw loo xam ne laysat fii man faa wala tasiq bul dëgërlu bimra atin ci jigéen wala tuxarra te buñ la war mukk bi maa leen ci alal wala tuxarra dañ koo tëgg jëme ci ba fool bu nekkoon wala tao torra te bul waru nag ñu tegu ko jëme ci faaxil bi maalin wa in kasura ak doonte bari woon na alxut bi nee na mboolem wax yi nga xam ne ñi yàlla may xel mu rafet ak xam-xam am njariñ doon nañ ko wax yépp mën nga koo dugal ci biir ñeenti baat ñii dara du ci génn ñeenti baat ñii ba ci jëkk mooy bul yan sa xol loo xam ne àttanoo ko loo mënut rek bàyyil bul jéem a yanu loo mënut ñaareel ba mooy lépp loo xam ne amul njëriñ moom la jaral dara dara ñetteel bu mooy jigéen bul ko wóolu mukk mukk ndax tey mën naa am muy sa jigéen bu ëllëgee muy jigéeni keneen ci mujj nag mooy alal bari bari bu defe ne jeex wees na ca alal lum bari bari borom mën naa xëy suba rek mel ne mustawrati dara dara xikmatun lii beneen wax bu am njariñ la ida aratta boo bëggee an takuuna nga nekk xasiisan di aji tedd fi duniyaa ci àdduna wal axirati ak àlaxira fajj tanib na nga moytu arbaxatan yent laa tuxaddis bul waxtaan wala tushhad te bul seere wala tusalli te bul julli binnaas ak nit ñi wala taakul te bul lekk taxaama ahadin ñamu kenn boo bëggee doon ku tedd fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira moytul yent yi bu jëkk bi bul waxtaan mukk ñu lay déglu fexeel ba ñuy waxtaan yow ngay déglu rek waaye yow bul toog di waxtaan ñu lay déglu ñaareel bi mooy lu yàgg-yàgg bul seere ñetteel ba mooy lu yàgg-yàgg bul jiite julli bàyyil ñu lay jiite waaye yow bul jiite ñeenteel ba mooy bu lekk ñamu jaambur fekk na lekk ñamu jaambur ci loo xam ne xolam seddu ci moom mbaa ci anam gu dëgganut moom ku ne xam na ne daa aay li bëgg wax kay mooy lekk ñamu jaambur goo xam day mel ne aayut nii du tee rek soo ko mënee moytu moytu ko tey lekk sa ñamu bopp yii mu aaye lu ci nekk mën naa am tuyaaba ndax waxtaan ñu lay déglu mën naa am tuyaaba seer yi sax léeg mu dem a dem ba nekk lu war ndax bu dee mbir moo xam ne rek yaa ca mën a seere mbaa bokk ci seer yaa ko mën tollanti mu mat boo ko deful borom àq ji ñàkk àqam seere sa du mën ñàkk jiite nit ñi itam bari na tuyaaba lool waaye nag yooyu yëpp li ñuy baax baax ak li ñuy bari bari tuyaaba mën naa mu làqu ca biir ba yàq ko ñu far sotti ku lor bañ a doonati njariñ loolaa tax nag mu wax loolu xikmatul lii xikma la wa qaala waxoon na xakimun aji xam xikam libnihi ñeel doomam ba ni ko yàbbu na yow sama ndoom ihdar watandikul arbaxatan ñeent ñii alkarima aji tedd ja ida ahantahu ndéem doyadal nga ko wala xaaqila ak aji xellu ja ida hajartahu ndéem jàmbu nga ko wal ahmaqa ak ajo dofu ja ida ma zaxtahu ndéem kafante nga ak moom wal jira ak saay-saay ba ida saxibtahu ndéem àndaale nga ak moom am na ku amoon xam-xam te rafet la ko mu wax doom ju góor ji ne ko ñeent ñii day na leen mayu bu baax a baax ku baax koo xam ne xam na boppam te gawut a mer day soo ko doy dalee ba mu mer sooy boo moytu ko ñaareel bi mooy ku amum xel soo ko jàmboo wan ko gannaaw bu mu xam ne yow mii jàmb nga ko sooy boo moytu ko bu baax a baax loo jotee teeg moom rek musiba mën na la caa dikkal ñetteel bi mooy ku dofe da nga moytoo kaf moom bu xësee bay kafakub dof daal moom sooy boo moytu xam ne lu ne mën na caa juddoo ñeenteel bi mooy ab saay saay bul ànd ak moom wala boog soo see ànd ak moom saye boo moytu bu baax a baax te xam ne ànd akub saay saay moom lu ne ci lor ak musiba mën na caa juddoo xikmatu lii beneen wax bu am njariñ la waqaala waxoon na xaatimun xaatim ne arbaxatun yeent yi laa yaarifuhaa du leen xam illaa arbaxatun dara ñeent ashabaabu ak waxambaane laa yaarifuhu du ko xam illa shuyuux ndare màggat ña wal aafiyatu jàmm laa yaarifuha du ko xam illa ahlul balaa i ndare ñuñ balaa wa sixatu wér yaram laa yaarifuha du ko xam illal marda ndare way tawat ña wal xayaatu dund laa yaarifuha du ko xam illal mawta ndare way faatu ña xaatim nee woon yent yi ñeent leen xam ba ci jëkk mooy ak waxambaane ka dem ba màggat moo koy xam ka tollu ci waxambaane ko moom du xam ca dëgg-dëgg ak waxambaane ni mu doone xéewal ka dem ba màggat nag gis màggat na mel ak na waxambaane ka meloon mooy xam lan moo di ak waxambaane ñaareel bi mooy jàmm jàmm moo gën lépp ba yonent bi ne woon dee leen ñaan yàlla seen boroom jàmm jàmm moomu nag ka yàlla teg balaa rekk ci dëgg-dëgg mooy xam jàmm na mu neexe ñetteel ba mooy wéru yaram ku tawat rekk ko xam ku mosoon wér dem ba yàgg mu tawat kooka mooy xam àqi wér ak na wér toll waaye ki nga xam daa wér rek di yooyu moom du sant yàlla cant ga ci war ndax du xam ca dëgg-dëgg wér na mu toll bi ci nag mooy dund ci boppam ñu faatu rek ñoo xam dund ni mu neexe ak ni mu amee njariñ kii dund moom mën naa bañ a xam dund ni mu amee njariñ waaye nag ñi ñoom ci dëgg-dëgg ñoo xam lan mooy dund ak na mu amee njariñ xikmatun lii benn wax la bu am njariñ waxi ni waxis na ne arbaxatun ñeent laatanu fakku duñu deñ min arbaxatin ci yent aljaahilu ajiréer mina saqati du deñ ci rotiit maanaam wax li naa i nu mu ko waxee wal xaafilu aji sàggan du deñ minal xalati ci njuumte wala xajoolu ab yàkkamti waakon du deñ minal zolali ci rëcc rëcci wal mulooku buur yi àdduna yi duñu deñ minal xilali ci ay ràgg-ràgg wala ay rëq-rëq ñeent ñi duñ tàggoog yent yi jëkk ki mooy ku xamut ku xamut faw rek muy wax lu naa ay nu ko waxee loolu des na ko waxa waaye ku xamul moom faaw rek muy wax lu ñu naa lii lu muy génn ci gémmiñ ñaareel ba mooy ku yëgadi ku yëgadi faw muy jóom ku yëgadi ku sàggan du tàggoo ñoom te ñetteel ba mooy ku yàkkamti ku gaawantu lool yàkkamte loo du teelu mukk mukk faaw rek muy am ay rëcc rëcc aka yàqule faaw rekk muy yàqule aka yàqale yàkkamti liñ ko waxee yàqate rek bi ci mujj nag mooy buuru àdduna lu mu nuru nuru ku jekku nguur ga nekkut lu ko tee nelaw te mënu ci dara mooy nguuruk àdduna du ñàkk mukk lu ko naqaral ca biir te borom nguur ga du ca mën dara minal xilali ci ay ràgg jamxu xillatin la mbaa nga ne ci ay rëq-rëq xikmatun lii xikma la man onte koo xam ne joxeef na ko arbaxan yent lam yoram xañee fu ko arbaxan ñeent man ootiya koo xam ne joxeef na ko ashukra sant lam yuxram xañee fu ko almasida ndolleen ndax xaala taala la in shakartum giñ naa ne bu ngeen santee la azidannakum danaa leen dolli wa man ootiya koo xam ne joxeef na ko al istixfaara sàkku njëggal lam yoram xañee fu ko almaxfirata njëggal li xawlihi taala istaxfiru nangeen ngeen rab rabbakum seen boroom innahu naka moom kaana nekk na xafaaran di ab jéggale waa kon wa man ontiye koo xam ne joxeef na ko at tawbata tuub lam yuxram def ko xañ alxab wala nangu ga li xawlihi taala wa huwa moom yàlla allazi mooy ka nga xam ne yaqbalu dana nangu at tawbata tuub ga xan xibaadihi walis ay jaamam wa man koo xam ne it waxotee joxeef na ko adduha a ñaan lam yu oram xañeefu ko al ijaabata nangu ñaan nga mbaa defu ko xañ al ijaabata nangu ñaan nga li xawlihi taala udduhooni woo leen ma astajib ma wuyu lakum ñeel leen maanaam ñaan leen ma rekk ma may leen wax bu am njëriñ bi dane kuñ jox yent xamal ne faaw rekk nga am yent ku yàlla may ngay sant faaw rekk ndolleen mënu caa ñàkk ndax moom moo ne su ngeen ma santee ma dolli leen kon nag ku yàlla may cant na xam ne may na ko ndolleen ba noppi ñaareel ba mooy ku yàlla may sàkku jéggulu na xam ne am nañ jégal ba noppi ndax yàlla moo ne dee leen jégguli seen boroom ndax moom ab jégalekat la ku ko jéggulu mu jéggal la ñetteel ba mooy ku yàlla xéewale nga nangoo tuub faaw yàlla nangul la ndax yàlla ne yàlla sama jaam ñi ku ci tuub ma nangul la ku ci defi ñaawteef it ma baal la ko ñeenteel bi nag mooy ku yàlla taw fii xale ngay ñaan sayoboo sa xel dal te xam ne danga am la ngay ñaan ndax yàlla moo ne ñaan leen ma ma may leen qaala ash-sha'biyu wa kataba bindoon na fii waraqatin ci aw kayit kisra ano shirwaan dañoo bind fii kisra bunu anoo sharwaan arbaxata astaarin yeenti bind xëy na itam muy wakkutiba bindeefoon na fii waraqati kisra bu ko defee fekkoon day soppiku arbaxatu astaarin al awolu bu njëkk bi dane alfaqru ñàkk huwa moom almawtu mooy deega al ahmaw ga eju xong wattaani ñaareel ba dane al ahma aji gumba mayitun aji faatu la wa in lam yuqbar ak doonte suuleefu ko ci bàmmeel wattaali su ñetteel ba dane man lam yu xallif koo xam ne gannaawalut wala dan doom zakaran ju góor lam yu zakar defu ko fàttaliku war raabixu ñeenteel bi mooy ab zulmu tooñ laayu doomu du sax wa in daama ndem sax na dàmmara mu màbb lépp walla dàmmara mu alag yàqte lépp am na ku ñu wax anu shirwaan mu nekkoon buur ca faris yore woon na kayit woo xam nañ caa bind yéenti bind yi bind wu njëkk wa dane ñàkk daal dafa mettee metti ba mel ne deegu xong cooy bind ñaareel wane gumba daal moom mook faatu ñooyam ku gumba rekk faatu na ba noppi doonte sax suuluñu ko ci bàmmeel doonte sax faatu duñ suul ko ci bàmmeel it mook ku faatoo yam ñetteel ba ba ñetteelu bind wa dane ku faatu ci bawul doom ju góor kon faaw ñu fàtte ko ndax bàyyiwut lu ñu koy fàttalikoo bu bàyyi woon doom ju góor mu taxaw taxawaayam ñu ko koy fàttalikoo waaye nag ku faatu te bàyyiwul doom ju góor daal du am luñ koy fàttalikoo ñeenteelu bindoo dane tooñ moom mëntu sax ndax bu naree sax yàq lépp lépp loolu nag moom abubakar mu baax ma yàlla na ko yàlla doon dolli gërëm waxoon na ko nee na woon buur day su xësee maanu doon ci sax daa weddi yàlla waaye maandu na rek yàlla mën na ko bàyyi nguur ga waaye nag tooñ jaami yàlla yi ñàkk maandu moom yàlla du ca far kenn buur bi bu xësee ñàkk maandu di tooñ rek baa doole yi faaw yàlla daaneel nguur ga bu xasee maan nag moom doonte yéefar la ak kàccoor la it yàlla mën na ko bàyyi nguur ga ndax maanu ga waqaala waxoon na shaqiixun albalxiyu xarrajtu génne naa arbaxata alaafi hadisin ñeenti junni hadiis tumma xarrajtu topp ma génnewaat min ci ñoom arbaxata alaafi kalimatin ñeenti junniy baat tumma xarrajtu topp ma génnewaat min ci ñoom arbaxata ahadisa ñeenti adis awwaluha aj jëkk seen mooy la taqid bul fas xalbaka sa xol maxal marati ànd ak jigéen fa innaha naka moom al yawma ji laka ñeel na la waxadan ëllëg li xëyrika ñeel na ku dul yow wa in ataataha te ndeem topp nga ko àdd xalaat ko mu dugal la annaara sawara wa taani ñaareel bi laa taqid bul fas xalbaka sa xol maxal maali ànd alal fa innal maal nag alal xaariyatun ak ab rek la wala ak able rek la al yawma tey ji laka ñeel na la waxadan ëllëg li xëy li ko ñeel na kudul yow wa mata xaqata te saa yoo fase xalbaka sa xol bi maa ci alal mën a ata nga aaye min hu ci moom àq la àq yàlla taxalaa kawe wa mata mën te saa aaye xaq la yàlla ja ata nga topp ak seytaana seytaane ak ñetteel bi muy utruk bàyyil maa loo xam ne xaaga toq na fii sadrika ci sa xol wala ci sa dënn fa inna xalbal mumini naka xolub aji gëm bi manzilati shahidi nekk na ci wàccukaayu seere yaddu taribu dana baj baji hindu shubhati fa lëntuma wa yahru bu te muy daw minal xaraami ci aji araam wa yaskunu te muy dal xindal xalaali fa aji lew arraabixu ñeenteel bi laa taqul bul wax chey an dara xataa tuxkima ba ta nga xereñee aljawaaba tontu la shaqiq dane lay naa addis yi segg leen bu baax baax ba génn ca ñeenti junni addis ñeenti junni ma layaat leen seggaat leen génne ci ñeenti junni baat ñeenti junni baat ya ma dellu layaat leen seggaat leen ba génne ca ñeenti addis ñii bi jëkk ci ñeent ñi mooy jigéen bëgg ko waaye bul ko wóolu te bëgg ga na rekk ndax koo xam ne mën naa doon sa jigéen tey bu ëllëgee mu doon jigéeni keneen te it li ëpp ci jigéen ñi boo leen bëggee bëggeel gu ëpp ba lu ñu la joxoñ nga waaxu jëm ca soo tuut ñu yóbbu la sawara kon nag jigéen soppal te bul wóolu te sopp nga it na yem rek ndax xamoo kañ ngay tàggook moom mën naa doon tey tey mën naa doon ëllëg ñaareel bu mooy alal moom bul ci wekk mukk sam xel ak sab xol lu alal bari bari ak lu mu foor foor na nga ca moytu wekk sam xel ak sab xol alal moom lu ñu la abal dong la tey ngay yore ko bu ëllëgee mu toxoo ci yow jàll ci keneen teyit bu xësee wekk sa xol ci alal ji ba mu ëpp lala ci yàlla digal doo ko def te kat boo ci defut lala yàlla digal yaa ngay topp seytaane te seytaane ku ko topp moom ba nga lay jëme ca safaan ba ñetteel bi mooy lépp loo xam ne saxol da ciy jeexi jaaxa di nattable ndax lew na wala lewut yow jullit bi sayaboo dal di koy bàyyi ndax jullit dëgg-dëgg xolam day mat seere su xol bi àggee ci lu lënt dana baj baji du dal ba àggee ci lu araam moom day daw bu lu lew nag xol bi doora def tekk dal ànd ak wóolu kon nag lépp loo xam ne sab xol dalu ci rekk ngay nattable araam naag araamut dali koy moytu rek ñeenteel mooy bëgg a wax na nga seet ba xam lu mu ak foo ko sës ba buñ la lu tax nga wax li nga ne nanga ma tax ma wax ko xikmatu lii wax ba am njariñ la waxil waxis na ne azuhudu dëddu fi duniyaa ci àdduna xalaa arbaxati asiyaa nekk na ci yent yëf asiqatu wóolu billaahi ci yàlla fii maa ci la nga xam ne waxaada dale na ko min amril axirati ci mbirum alaxira wa an yakuuna ak bu nekkee madduxul xalqi taggu mbindeef yi wa dammuhum ak seenu ŋàññ sawa andi wa yemoo indahu fa moom wal ixlaasu ak sellal fil ci jëf wa tajaawusu ak jéggal xàmman walis nga xam ne volamaxoo tooñ na ko mu ne nee nañu dëdd àdduna mu ngi feeña ci yent faaw jaam bi day wóolu mën a waat ne lépp lu yàlla wax lu aju ci mbirum alaxira moog lu am ba noppi ñoo yemoo du am dara lum cay sikki sàkka ñaareel ba mooy mbindeef yi tagg ko ak ñu ŋàññ ko la yemale képp képp ñetteel ba mooy jëf ji muy jëf da cee ànd ak sellal yàlla rekk rek tax ñeenteel ba mooy ku ko tooñ mu jéggal la àdduna du ko jaral jekki di fayonte xikmatun lii beneen xikma la waxiin waxeef woon na li baadil xukamaa yi ñeel leen ci way xam ñi xikam xalaama ana ci lan asasta nga fonde mooy nga sose ibaadataka sa jaamu yàlla gi xaala mu ne xalaa arbaxatin ci yent xalimtu xam naa ne an na lii naka ñeel na ma risqan wërsëg laa yefuutu nii wow raw falam ashxal soxlaalu ma xal bi sama xol bi ci moom wa an na lii ak naka ñeel na ma ajaran ab ab yubaadiru nii boobu day jëkkanteeg man fa ana man ubaadiruhu danaa jëkkanteeg moom wa anna alayya ak naka war na ma fardan farata laa yuqimuhu du ko taxawal xayri kurlu man fa ana man mustaxilun aji soxla wala bisi ci moom wa anni ak naka man laa axiibu doo mën a fàddu xan nadari rabbi walis xooluk sama boroom fa ana man mustaxyin aj rusla minhu ci moom mas nañoo laaj kenn ku